mbokk yi yéen góor ñi rawatina jigéen ñi fu ñu toll war nañuy bàyyi xel ne wérgu yaram amul njëg la santé n'a pas de prix yaram di lu nu war a fonk saa su ne ñu war di toppatoo suñu yaram ni mu waree ak produit de qualité bio ci seen boutique qualité bio ci seen boutique qualité bio am na fa ay produit yu ñu jëlee ci gàncax gu raxul ay produit yuy faj di defar seen yaram te amul benn ngaañ muy huile di pomade yéen sunu mbokk jigéen ñi ak góor ñi ku ci sa deru bopp di xesen sa karaw di ruus mbaa nga bëgg sa karaw ci lu gaaw seetil seen boutique qualité bio am fa ay diw ak pomade ci traitement bu gaaw yeen jigéen ñi ku ci sa yaram am ay rew ba jaaxal la mbaa nga doon xeesal ba sa yaram yàqu am na fa ay produit yu leen di faj ci lu gaaw lu amul benn effet secondaire ci seen boutique qualité bio nga xees mbaa nga ñuul am na fa saabu yuy gën a rafetal seen teint ngay borom yaram sa yaram sonn la demal seen boutique qualité bio am na fa ay tee di warga yu gaaw ci obésité bu sa yaram di ngiis ngay jeex waaxul ba seen boutique qualité bio weddi nag gis bokku ci nga bëgg say cër mel ni la neex jàpp jàppanteel ak sen boutique qualité bio Sen boutique qualité bio ñoo gaaw ci faj hémorroïde ak yok ngóora amna na fa it lem bu raxul dara ci gàttal sen boutique qualité bio moy xewal gi sunu borom wacce ci réew mi ngir askanu Sénégal am Sen jàmm yaram boutique qualité bio ñu nga ci rond-point case cité amon 2 ak ci unité 16 ci kaw tali bi bo weesoo terminus tata yi mel kuy dem jor ci banque bisis bi boutique qualité bio téléphone 78 179 93 93 78 179 79 93 93 voilà 76 886 80 00 76 886 80 00 boutique qualité bio c'est une